te bañ a far saytaane mu xool feege ka ndey jëlam moo tax ma jaale ku may xutba bu mu noppi lu ko mooy ma bokkaale bu ma wóoroon tooñ ma yàlla tooñ samay dëkkaale talaata jama suule faatu àllarba lañ may suuli faatu dem na ku gis mu neex a baabale nga yëgal ma ma waxaalik sarbi jéema sàmmaan dox naaw yet wàññi nelaw ak karabaane jéem a rafet ji mu ñëw ko du tooke gaaraale téema dem ba gawal la gànnaar jàngaane tey jalwaan guddee ak bëccëg mottali saa yéene ndax ñu xamal fa laa yow ma ñaan ndox ma ñuy nandal faatu yàlla def ko meew baatin faatu yàlla ko malaayka yi teeroo gi ngëneel jëfam ci man yàlla ko wallu ne kon du jaaxle néegu teraanga bi ma sampaloon jën yaa ngi daanoo malaanum sutura mi ma yiiroon seet naa ko réer na faatooma mataloon naka muy dem may manki mooma daa digal ni ñu yore njaboot gi faatoo daa sonn ci taaw gànn doxiwul ci santaane pour gayeeg bay nay gënu ma nee na jaaxle tegoon nañu ma ku njëlam doy gën a néew le tegoon nañu ma denc kat bu dul dóor du dóor le dama samp kër gi faatu samp yaatoo muñ le faatu dem na léegi kër gi danaa ko tay le kër gi danaa béega ci biir doogi sooseew ten ku yëg nañu dem gi ba kenn dootu fi jaar si mu may man kenn secretul yëgal ma kenn dootu ma waxtaan leew dara réeratul ci kër gi ba ñu jim ma koo seetle njaat ca mbuura ngi may kër gi kenn déwatumam nawle baasuule gor salaa xam ne dinaa niil bu faatu doon du ñuy peese ma xam ne mat la kaare ak matam la dikkaale ba muy dem moom la yóbbaale faatoo ma daa sagal ci sama biir naw le naa loo gis ci man soxla ko jaayal mbaa nga tayle te woon na jonge te woon na waane mosula gi lu dul ni maa ko yónni daawul xir ci laajam amoon na xel lu sonne mosuma ko wax mu teg baat du kekkentoo ko ñaawle billaay moo gore maandu say rek baatin lawet am fu la lu jafe ci soo daan maa ngi dund léegi rek dund gore wowuma tooyuma sëriñ bi dolli ma ñaanoow keroog dëj ba xam ne moo ñàkk ay noon ñii ngi naqaroo ka jooy ñi de sago di ñaan rafet ji góom gay ne mas la xari toog waane ñëw na belem xamuñu ko dellu na wuru lay jëmm jaat jikko jële yàlla niroole ji sopp miin bëgg amu noonu daag waale mosuma salalu mukk duma wax mu mankiil ma daawu ma yibaane fonkul won kujj ba mu ayewul def ma bañaan du won jeeg bu naaneegub doroo dama jigul du jëf taxawu ko naa tooba saxal mbaa sulli bët yi ma yaay xoole rek la ma baatu daa xooleew xëy ci saa ndigal ca gont la ma daa moole billaay maa ko gërëm ba gërëm naa lu mu xeetool soppiku naa jaam ci néegum ndayam ba kere ñu may goreel demuk faatu gi nag ku mu mettiwul day bu ma dee ca jaal si boo dee xarit mbaa doomi nday bàyyi ma bàyyi naa la jéeg ju bon ji dara la ko wax lii du baax ak ndof faatu góor ñi buñ la xasee yab lu ñu yëkkatee di teg mu ne leen jaay si wu ma juddu kat akub taar fekk si wu saab nawle ku gis sab sang jaamu lu ko may nga raw la kaaja yeeg libi door yi ku bëgg ma bàyyee laaw koo jiitu àllaaxira ko ngërëm bu la ma fekkee ñu dellu ko ne ajjana yàlla jëkkër mbindaa fon la tey faatu laa jël samari yi ba mu mat bu la wàccee keneen jël la mu ne leen man sama baay fuur yi la woon bu daa bu may déglu lu neexul yàlla ak yónneen bi bu ma ko digal ma daw la bu sariyaatu tëraluloon denc mbaa muy aada junu fekkoon kenn duma li maa di ci bi di ma soññ ko fitna géej gi na ko daa jëw lii du baaw ak ndof faatu góor ñi buñ la xesee yàlla ñu yëkkati teg jeer ju bon ji daana ko wax faatu lii du baax ak ndof la góor ñi buñ naqasee yab duñ yëkkati teg la te gisu ko gisu ko saar ki dem nii laa def di ko yónni tuuti kon mu dóor ko te ci teen bi faatu ne leen man jaay suuma juddu akub taar kat fekk si wuma saam nawle gis sab sang na nga jaamu ko mooy le ku gis sab sang na jaamu lu ko mooy nga raw le kaa ji yéegle bi door yi ku bëgg ma bàyyee la koo jiitu àllaaxira ëpp ko ngërëm bu la fekkee naw na ñu dellu ko ne ajjana yàllaa ko moom jëkkër mbindaa fon la faatu laajal sawaari gar yi bu la waccee keneen jël la mu ne leen man sama baay foo yàlla woon bu daa xot bu may déglu lu neexul yàlla ak yónneen ba ku ma ko digal ma daw bu sariyaatu tëralu noon denc mbaamu yaata junu fekkoon kenn duma limaale ci sab kaara bi di ma soññe ko fitnaan demuk faatu ku ma ci seet faatu gii ku mu mettiwul bu ma dee bu ma jaaloow boo dee xarit maa doomi nday bàyyi ma bàyyi naa la demuk faatu gii ku mu mettiwul bu ma dee bu ma jaal si boo dee xarit maa doomi nday bàyyi ma bàyyi naa la demuk faatu gi sax ku seet lee nga xeeb sama baatin mbaa nga teg ma jaayil gi ma sula dal baatin jooy sab soppe arhaamul dëkke koo di mooy yàlla ku dul waliyu doob yonnan ku la nattoo lii daj la faatu ñëw na ba dem kenn àmmewul xajjam ak seenam mëteefu koo àtteeb xeex daawul xunoo maasam daanaa xëy di kële ba di ko nattoo ba seetlu bëgg a xam day ngis talam yàlla ko binde loolu faatu Fatima daw demal dawal comme muri tubbaay faaloow ma di teg muy tegoo ba ma rusati koo xool falal na fal saay bokk lii wóor na saay nawle naagu woon naa naqari kër ndeke yàllam jooy la dëkkaale yi ma di balu di leen ko jaal te di leen sant fu waay na ko saraxum ñaan marché bi yokk naa ko waaye nga faatu mënuma ko ba mu jeex damay jooy ba faatu wayu baatu ku mu neexul kër gi dootoo yaatu boo dee rakk mbaa doom bi dem fuuta tasteel kër gee moo ma gënal way faatu liggéey bu yemeeg tëdd jàmbaar dootu gaaw gàtt gémmiñoo ñu ne kumpa wuuteeg man ci waxtaan maa ko magu ko te daanaa ci moom. billaay ñi ma joxe tey njëkk bu ñu meloon ni faatu kenn du ma woo tey bi naar may layoo ka waatoo. sëriñ saa may waat ci nga bul weddeew bokk yëpp a ngi naa aat kay rikk bul ñànki. Omar Thiam gor sii naa wutil ku mel ni faatu toogaay bi jaaduwul te jiima mu ñu nattu. manaa ba bu tëgg demee lu puy def xatal mbaaroow. ànd war na moroom ji naa daw dellu kajoor yàlla rek amat buur moo yebal si abdu jàmbaar bu dikkoon ci kër gi kudul abdu balaa dem ma jaar moo ndax dama xamante ne du fi yàgg tool bi mu gaaw bay ko mbay mu rafet mi mu ko bay te jotul a nen ñor gi yàlla bi doomam yi des te nangul tool bi doomi faati des fi góob ko ku dib jullit te ne amin yàlla nga dajee njool makka dawatuma waaxoo tuma gaay damay far daagu seena tuma ci garab yi man lu ma jar liyut bu ko waane di gini man lay gar mbaasu waande wayu faatu wi ku ko kontal bu ma sañoon faatu ku amul xel du ràññee xanta xarabaate yiw yu faatu gay def door a dem rek laay waxtaane ba faatu demee laa xam ne doo tumurub giiw bii tekki naa saay doo tuma dëkkaate ba ma suulagul faatu maa fi doon waaji léegi yaa wuslaa bi may kanal gaañu tooñ ma tooñ yàlla ba mu nattoo ma baatu gay fu ma toll moom laay xalaat ne tuma jiit saa kom kër gi jeex na way fu may dundee di saali tuma bañ ma jooy na delloo si baatu saa kom gi jeex na way man fu may dundee di saali tuma day ko bañ ma jooy na delloo si baatu wóotaatu ndey wi dem na way fu may nampee teew saa ñe yoo ne daanu na naa wir gànnaay mu taasu ndey wa dem na nam peeti saañe yoo xam ne daanu naa wér gànnaay yi nëfa na ma dayoon ngir fonk kilifteen mosuma teg seen soxla bañ ma biime te juddoo ngi yem fi moom ndax dame lay maamam mosula toog ba wax ma ko ndax bañ ku ma tiim wetu sëriñ bi ndax doomi soxna yi téere mosula doon nag menn maam mu sampul daara ku saxoon moo ga maa di xam nga baayam ku saxul Sëriñ Tuubaa xam nga Modou Gaye mooy maamam ku saxul Maodo Malick xam nga Modou Karim mi baayam ku saxul Sëriñ Tuubaa xam nga Modou Gaye mooy maamam faatu ko way ba génne ko Medina Kokki judduwut ci gëléem namp ci baam fortuwul ba ko Medina Kokkeew judduwul mi ku faatoo doon na maam yo ah xam lépp wax lépp man ñi da koo aaye faatu amoon na lislaam ak ngor te bari teraanga réyoon nam xel ba daana daw yaraanga na taax te du woon na baax bu doon njëstal muñoon na te du ab dof na te soxorul daraja ji ma gis ci baatu jigéen ci ko am te maandu moo doon góor ñi di la raamal ngay dékk yi daayam